thank you ami internet enquête 221 daleen nag jàmm ci seen xibaar ak ci people danañu ko doore nag ak procès bi nga xamante ni daal niki tey ji lañu koy amal foofee ci tribunal bu Guédiawaye ñeel nag Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam ak nga xamante ni daal moo di Déthié Fam tey jile rek nag lañu leen nama àtte ngir rek xool am déet dañuy ñibbi ci seen kër yi ci boobule mbir nag mbooloo mu takku takku takku rek lañu nemmeeku foofee rek ca tribunal bu waaye ñëw rek ngir. soutenir seen ay leader ci loolee rek kii di député bi lee di Mame Diarra Fam gannaaw rek ba ko enquêteur yi laajee ndax li nga xamante ne rek moom lañ koy toppee moo ko def am déet la nga xamante ne nag moom la tontu moom soxna si dina rek demul woon ca yooyu la manifestation waaye dafa demoon rek ca kër Barthélémy Diaz foofu rek la ko fekk daal di koy teg loxo foofee nag ka nga xamante ne itam nemeeku woon nañ ko fa di Ousmane Sonko gannaaw nag ba mu ñëwee foofee ci tribunal bu Guédiawaye kenn rek mënatul xam xam la ñuy def ñëpp rek turam lañ doon jël di ko yuuxu ngir rek manifester seen contentement ci teewaayam foofee ca boobule tribunal. njiit réew mi président Macky Sall nag mu ngi woon foofee ca Tiwaawoon ci week-end gi ñu génn moom la rek gannaaw loolu demoon na fa rek itam ngir amal fa ab pose première pierre sekk ak waxtaan ñi nga xamante ne rek moo di kilifa diine yam fa fekk ci loolee nag ki nga xamante ne moo di xalifa général bu Tiwaawoon daal jëmle ko ci président Macky Sall mi xamal ko ne ko rek kontaan nañ ci moom bu baax a baax fi mu teg tànkam bu mu ko teggi jàmm rek lañ fiy sàkku te rek bëgg nañ lépp loo xamante ni daf koy faagaagal bul ca ànd mu ko cay dollil moom kilifa gi di ko xam leen daal ku boot bukki rek xaj mbaw la lépp loo xamante ni rek am na ci réew mi dara ump leen ci ñu ngi gis lépp waaye teewul rek bu mu tontu benn provocation na rek toog waaye bu mu bàyyi kenn di tàll réew mi noonu la ko xamalee moom xalif bi lay dénk ko rek ak ki nga xamante ni daal moo di président Macky Sall ci loolee rek moom njiitu réew mi président Macky Sall daal fay amal nag ab pose première pierre ñeel rek hôpital gi nga xamante ni daal namm nañ ko fa tabax ngir bu noppee rek ñu tuddee ko Seydi Hadj Malick Sy ñi leen nag di ay africain jëloon gaal gi ngir dem rek foofee ca diwaanu Europe ca Melilla yàlla ñu daal di atterrir di ab rek ville boo xamante ni daal ci rek Maroc la bokk waaye rek dafa jege loolu li nga xamante ne daal moo di frontière bu Espagne gannaaw nag ba ñu yeggee ci frontière Ceuta Melilla dañu leen rek daal di jàpp takk seen ay loxo di leen door door leen nag ay door yu métti métti ñu bëri nag jot nañ caa ñàkk seen bakkan eh, ci ay africain mu bëri ci loolu itam ay sénégalais eh, boobule vidéo nag képp koo xamante ni gis nga ko sa xol fees na wala sax sa xel di sot loolee la ñu di nemmeeku ci réseaux sociaux yi tax rek ñuy commentaire ni eh, naar yi nga xamante ne daal ñoo nekkee foofu ca Maroc li nga xamante ne moom la ñu def seen doom yee nekkoon foofee ca rek frontière bu CETA ci loolee ñu ngay duut baaraamu tuuma autorité africaine yi lay di leen xamal ni daal jot na ñu def ay jéego ngir jéem rek nañu def ba daal di récupérer ndaw yooyee nga xamante ne rek ñu nga foofee ca frontière bu CETA Melilla lu jéege njaak ñoom ñi lañ nooy njaak noonu lañu ko xam ne ndax tax na rek ba nga xamante ni daal ndaw yi daal nañuy désespéré tax rek gisuñu teranga àdduna mu mel ne nag li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku foofee ca Maroc ñeel sénégalais wala sax africain ya fa nekk mën na rek dekkaliwaat la nga xamante ne rek moo di révolte amoon fii ci atum 1989 di rek événement naar yi Sira Dramé di ndaw sa sàccoon ki nga xamante ne nag moo di bébé Aïda ba noppi rek daal di koy nëbb foofee ca Pikine Icotaf na nga xamante ne nag noonu la ko yóbbu moom Sira Dramé mu ngi koy wax enquêteur yi ne daal dafa fekk rek xale bi toog moom dong mu jël ko daal di koy xamal ne ko daal nañu ànd ma jëndal la bonbon mu nga leen di xamal tam ne moom Sira mi lay jëndul woon benn intention def lu ñaaw ki nga xamante ne rek moo di bébé Aïda wala rek mu koy métital la nga xamante ne rek moom la ko bëggoon def ni daal jël ko comme doom bu mu sukk jur gannaaw rek ba mu amee li nga xamante ne moo di ay avortement ci ñaari yoon boobaak léegi nag mënul jël ëmb jëkkëram nag di rek ab immigré bu mu ñibbee sax yàggul waaye moom yooyule rek ca diwaanu Gambie la bàyyeekoo tollu ci ñaar fukki at ak juróom-ñett dolli na ci rek moom Sira Dramé mi leen rek ba nga xamee ni daal toog na lu yàgg mënul jël ëmb la nga xamante ne rek moom la doon def di rek jënd ab valise bébé bàyyi ko ci néegam di ca def ay yére namm rek am doom joo xamante ni daal daf ko koy solal ci noonee rek la gis daal xale bi lee di bébé Aïda mu neex ko loolu ca la ko jëlee rek daal di koy yóbbu ca këram ngir solal ko ca yére ya ñëwoon ci kër ga di ko laaj rek kan nga xamante ni daal moo jur doom ji nduroog loolu ka nga xamante ne moom la ñuy publier ci internet bi ne daal dafa réer la daal di rek am soupçon ne rek bébé bi leen jortu ne daal mooy bébé dem mu ñuy wër ci loolee rek la daal di dem police daal di rek déclaré loolee nga xamante ne moom la gis ci kër jàmbur googee ba nañu civilo daal di ñëw tekk loxo ki nga xamante ne rek moo di Siré Dramé gannaaw rek ba mu doon waaj dem ngir tabaski ji jox nag ki nga xamante ni daal moo di topp modèle bi di wuyoo ci Fleur Mbaye bu ñu sukkandikoo nag ci suñuy nattaange yi nekkee foofee ca diaspora 221 ñu ngi ñuy xamal ni daal boobule sax mariage dañu ko célébrer dans la plus grande discrétion samedi bi ñu weesu nag la ñu doon takk boobule sëy ci samay kàddu enquête 221 di leen di souhaiter heureux ménage te sëy boobee bokk ci ñu takk ca Aras beneen sëy bi nga xamante ne nag dagalal nañu ko ci week-end bi di rekk Fatou Cissé doom la ci coach gaynde équipe nationale yi di rek Aliou Cissé daal na nag may doomam jile borom kër gannaaw rek ba nga xamee ni daal kenn rek nattablewul seen complicité ci réseaux sociaux yi gannaaw rek seen ay nataal yu ñuy dugal di ca bataaxal ku ci nekk rek di ca wane sa cofeel ci moroomam daal dina nag doon madame Soumaré moom rek Fatou Cissé di doomu Aliou Cissé enquête 221 di ko ñaanal itam sëy bu barkeel soxna Sile nag ñu fësalul turam bi lii di xalaas ni daal toog na lu yàgg amul borom kër waa ji nag daal di koy topp lu yàgg gannaaw nag ba ñu nangoo daal di daganal seen diggante sëy nañ nag lu toll ci ñaari at amuñu nag bant pression familiale ba daal di jóg ku nekk rek di ca wax te xamuñ ne nag ki nga xamante ni daal moo di borom këram mel ne daal ku koy daw ndax mënuñu toog lu toll benn weer sans ñu am rek li nga xamante ni daal moo di intimité ci loolee nag la daal di toog téléphone am sonné ki nga xamante ni daal moo ko woo di rek koo xamante ni daal coro borom këram la woo ko daal koy xamal ne ko daal soxna Sile sa jëkkër yaak moom la ngeen koy seq bariwul waaye mën ak moom itam ñu ngay defar ba mu baax noppi wuñ ci loolu mu daal na ko rek xoolal sa téléphone nga daal di am firnde ci li nga xamante ni daal moo di kàddu yu ma yëkkati wane rek sa jëkkër jile man la nopp ci noonu nag la ko daal di envoyé vidéo boo xamante ni daal ñoom ñaar ñi leen ñu ngi leen cee gis ñu def rek na la seen nday julee woon di def noo xamante ni daal kenn mënu ko expliquer la nga xamante ni nag moom lay jooy soxna Siré dina daal xamul nag naka lay def boobu lay sëy tax rek mu ciy de li nga xamante ni daal moo di ay conseil ki nga xamante nag dafa daal di réer ay mbokkam mu ngay wuyoo rekk ci turu na Sakho tollu rekk ci fukki at képp dong baayam nag mu ngay wuyoo moor yaayam mi di Fatou Ndiaye Thiam ab ndongo daara nag ca daara ki nga xamante ni daal moo di Baye Mbaye ñas ñuy ñaan nag képp koo xamante ni daal gis nga ko nga woote ci numéro yi di 77 235 35 wala 77 630 99 79 wala itam ci 77 564 74 27 amee internet enquête 221 fi la ñuy yem ak yéen ci seen xibaar ak ci people di leen wax rek ba suba incha allah waaye bu leen fàtte benn yoon abonné wu ci suñu page YouTube bi di enquête 221 TV.